nuy nañ leen yéen mbokku téléspectateurs wala internet yi sax ñuy seetaan fii ci Dakaractu bi ci biir Sénégal et un peu partout dans le monde ñuy amaan mbégte bu baax a baax ñëwaat ak yéen ci seen euh, émission bi di en ligne rawatina ci numéro bi yes bi nga xamante ni dañ ci am privilège bu mag a mag di ci dalal kenn ci kàngamu politique ci biir Sénégal muy wuyoo ci turu Farba Senghor monsieur le ministre sax laay wax Farba Senghor ñu ngi lay nuyu di la ci seen émission en ligne. kontaan di la. Euh, fay ak ñi nga àndal ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal ak ci biir àdduna bi dañuy suivre ci seen euh, émission en ligne bi Mhm. alors euh, monsieur le ministre laa wax parce que su leer Wade occupé woon nga portefeuille ministère yu bëri biñ ci gënoon a xam doonoon nga fi ministre d'État doonoon nga fi également conseil spécial du président de la République ci parti démocratique sénégalais bu nga nee woon yaa yore woon lépp lu jëm ci wàllu propagande alors euh, gisoon nañ leen fi ci ay jamono yow ak Pape Samba Mboup ngeen euh, créé parti lañ ko mën a wooyee tudd ko mbooloom Wade Euh, actualité yi ci yu mujj lan lañ mën a jàpp mbooloom Wade fan la toll mu ngi existé ba léegi. waaw mbooloo Wade euh, dafa dafa dem ba màgg ba soppaleku tegi tudd mbooloo askan wi. Mhm. mooy euh, les libéraux républicains. ñi nga xam ne dañu topp idéologie ak philosophie bi ñu jànge woon ci maître Abdoulaye Wade. Mhm. ak républicain pour ñu méngale ko ak ci réew mi. Euh, ni nga xam ne noonu la bindoo muy le sceau de la république léegi loolu lañ ko tuddee yàlla def na comme dañu jàppale woon euh, président euh, Macky Sall une semaine après le début bi élection yi passé yu mille dix neuf yi bi ñu génnee ci loolu daf ñu dugal ci Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jàppale ànd ak Benno Bokk Yaakaar. ci loolu sax ñun bokk nañ ci conférence des leaders. ñun ci ci la ñu bokk. bokk nañ aussi ci toutes les instances yi nga xam ne am na euh, ñi ngi ubbeeku ci ñi nga xam ne léegi ñoom ñoo euh, nekk ci réew mi te nekk ay libéraux. mooy ñu gëm wala ñu jàng li nga xam ne moom la ñu Abdoulaye Wade jàngaloon. léegi sax ki topp ci man. Mhm. mooy Cheikh bu Fall. bi nekkoon ancien euh, ministre de l' intérieur. Mhm. fii ci biir Sénégal nekkoon tam ambassadeur euh, bu Sénégal euh, ci fi nga xam ne mooy Italie. Mhm. waaw foofu daal la ñuy toll. tout à fait absolument alors gis nañ leen ngeen amoon Pastef bu ma ci biir parti démocratique sénégalais ba na ngeen ñàkkee nguur gi sax taxawaay bu am solo bi ngeen amoon mais dañoo dem ba ci biir sa doxalin yow ak Pape Samba bu yenn ci askan bi ne rétropédalage la par rapport ak idéologique engagement bi nga xamante ni amoon ngeen ko lan moo ñëw loo xamante ne lu yees la ba ngeen soppi doxalin euh, dem ànd ak Macky ci election wu législative yooyu noonu tey jii bon ba ngeen sampoon mbooloom ak wàdd boobu noonu dama moom jàppale ko bu baax baax ci li nga xam ne moo di yooyu élection. waaw ñun euh, sunu doxalin bi amul. dara la wees xam nga nit ñi des fois. Mhm. duñu duñ la gis soo nekkee ci biir système duñ la duñ la seet duñ la may xel. Mhm. donc ñoom riir mi la ñuy gën a gis mais soo ko seetloo ku mel ni Pape Sambou wala ku mhm. mel ni ba Senghor bi ñu ànd ak président Abdoulaye Wade dañ daan wax di joxe seen opinion ci lu xew. ba demoon nañ jamono yoo xam ne sax da am na ñu àndoon ak président Abdoulaye Wade euh, ñu niñ doon demee neexu leen. balaa man doon wax Farba yow doo mën a jubóog sama ga yi parce que da ngay gis lu loo xam ne alors ñëwagul te ñoom duñ ko gis. donc yéen comme du ngeen évoluer sur la même longueur d'onde kon du ngeen mën a bokk gis-gis kon du ngeen mën a juboo donc euh, loolu moo tax bi ñu génnee ci li nga xam ne moom mooy euh, nguur gi ñu daanu ñu nekk ay jafe-jafe yu metti parce que partie bi di jàkkaarloo ak ak pouvoir bi ñun ñu ne nag ñu nañ daan doxalee ci biir ñu kon ni di ko doxalee ñuy wax ne dañu war di waxtaan. dañ war di déggoo dañ war di seet ni ñuy doxalee. Mm-hmm. ba man sax ma naan wax ne Omar Sarr ni mu yoree parti bi dafa am bëri ay dysfonctionnement yoo xam ne. Mm-hmm. man dañ ko war a changer. Mm-hmm. te parti bi rek mënuñoo di ko di ko yor boo yoreen boo xam ne. ñun ñi nga xam ne ñoo nekk sur place ah ñun duñ ci am benn dogal ci loolu xam nga ci lañ ma jëloon di yëkkati affaire bi. Eh, ñu reproché ma ne ma damay wax ci kaw. te fekk na maa wax ci suuf kenn dégluwuma may wax ci kaw. Mhm. loolu moo taxoon ñu dem ba mu gi ñu yóbbu ma commis commission de de discipline man ak Pape Samba Mboup ba ñu waxee pare ñu xam ne suñu yóbbu ci secrétariat national ba nga xam ne fa la ñu war a àttee euh, danañu jaxase xel ñu bari. Mhm. ah ñoom ñu daal di dàq. te yëgaluñu ko euh, ci ndigal goo xam ne Karim Wade joxe woon na ko ci loolu nga déggoon. Mhm. ñun ñu génn kon loolu moo ñu génne ci PDS mais ñun. Abdoulaye Wade la ñu xam PDS la ñu xam idéologie Abdoulaye Wade la ñu am. Mm-hmm. parce que àndoo bi ñu am ak président Abdoulaye Wade dootuñu ko am ak kenn. li ñu liggéey ak Abdoulaye Wade tam defe nañ dootu dootuñu ko mën a liggéey ak kenn. Mm-hmm. mais nag yow gis nga les grands hommes ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy seenu xalaat moom la àddina bi doxee <laughs> ñooñu nit ñi gisuñu leen. am na ñu bëri ñoo xam ne euh, am na ñu gëm El Hadj am na ñu gëm Cheikh Amadou Bamba. Mm-hmm. mais fekke wuñ ko am na ñoo xam ne gën nañ ay Lénine. ay marche am na ñoo xam ne ay Obasanjo dañ leen a gëm te gisuñu leen wala ñu gëm Nelson Mandela wala ay John Fitzgerald Kennedy donc je crois que ñun euh, Ablaye ba ñu gëmoon. Mhm. ñu ngi koy gëm mais Ablaye ba nga xam ne gaa dañ ko dévoyé. Mhm. jël xam-xamu Ablaye Wade ak xelu Ablaye Wade euh, bugg ko bugg ñu jaarale foo xam ne ñun xam nañ ne lii du yoon loolu ñun mosuñ ci mën a ànd loolu moo tax kon ñu dàq ñu. Mhm. ñun tam ñu ber suñu yoonu bopp te soo seetloo liñ doon wax. ci kaw ba Sénégal yëpp dégg ko bi ñu demee ba léegi yëpp ñëpp dañ naan ah lii kat Farba Senghor waxoon na ko. Mhm. que mu jëm ci président Macky Sall. que mu jëm ci ki nga xam ne mooy Karim Wade. que mu jëm même si sax Idriss Seck. Mhm. parce que Karim Wade bi coow li méttee métti wax ne Karim du ñëw du bokk. yi dafa naa ne dégg nga ko. Mhm. président Macky Sall tam man maa fi njëkk a wax ne day gagné élection yi waxoon naa ci janvier bu ma ne day gagné su ma àndee moom mu gagné su ma àndul ak moom mu gagné parce que opposition bi n'était pas prêt pour pour gagner parce que organiser wu pour gagner mais dañuy organiser wu pour affaire yi du am j'avais même aussi dit que euh, Ablaye du jox parti bi kenn je crois que loolu léegi muy law waxoon naa du ko jox Oumar Sarr noonu naa du ko jox maître Madické noonu naa aussi Idriss Seck mii di xaar Ablaye yàkkal ko électorat bi loolu du am et j'avais même dit Idriss Seck mi ngi per temps parce que il aurait dû waroon naa def comme président euh, Macky dem seeti les grands libéraux mu waxtaan ak ñoom pour mu am dara. Mhm. donc je crois que l' avenir euh, li ñuy wax jox nañu jox nañu dëgg. Mhm. parce que dama daan wax toujours ne yàlla dafa wax ci alxuraan ne certes dëgg-dëgg la vérité apparaît le mensonge disparaît car le mensonge et appelé à disparaître. Mhm. cest à dëgg moom su taxawee rek. fen day taxaw. yàgg yàgg fen day taxu xam nga fen dafa bëri riir parce que ñun dañu néewoon doole dañu néewoon doole parce que ni ñi Ablaye la ñuy gis sa dimension euh, Karim Wade la ñuy gis nous étions insultés même ci ci ci ci panel dama naan dugg ci réseaux sociaux yi même journalistes yi dañu doon interroger à délision donc dañu jéem a tourner mais yàlla dafa def man dama jàpp fu dëgg rek parce que j'avais aussi dit euh, Cheikh Ahmadou Bamba dafa waxoon ne yéen ñi xam da ngeen nekk ci dëgg da ngeen di jaar ci yoonu njub te ngeen muñ te muñ boobu sax yàlla moo xam ne maa ngi ànd ak ñi muñ te ngeen muñ ndax yàgg-yàgg dëgg day feeñ te su dëgg feeñee dangeen am ndam mhm. je crois que su fekkoon ne ñun li ñu doon wax amul solo bala puude la <laughs> kenn duñu woo ñu laaj mhm. suñu waxee ci rajo yi kenn duñu déglu ah parce que dañuy wax ne yéen amu leen dara yéen mënu leen dara mais je crois que l' avenir nous donne raison ñun daal gëm nañu suñu bopp tout gëm nañu ne demee mhm. lii ñëw mën nañu bokk parce Euh, enjeu bu enjeu politique bi du deux mille dix neuf enjeu politique bi deux mille vingt quatre la waxoon naa ne sax mooy la maire des batailles. ma ne après élection yi dafay am recomposition. xanaa tam Abdoulaye Wade mi nekk ko fi bëggul gagné. élection yi ñoom bëgguñu gagné élection yi Abdoulaye dafa bëggoon contentieux pour son fils dafa naa loolu tam dégg nga ko. <laughs> donc dafay am recomposition recomposition boobu nag ak libéraux yi. ci wetu président Abdoul euh, euh, euh, Macky Sall ñun ci la ñuy dugg parce que xam ne ne heure bu Macky président Macky demee bay bàyyi nguur gi. Mhm. su boobaa nous serons prêts ñun tam pour soit ñu jël ko. Mhm. wala soit ñu ànd ak ñoo xam ne dañuy jël nguur gi. ñun loolu moom mooy sunu sunu position. Mhm, voilà alors est-ce que tey mënuñu wax ne yéen seen plan boobu peut-être c'est voué à l'échec d'autant plus que. ki nga xam ne moom ngeen euh, génnoon ci partem dem lënkaloog ak Abdoul euh, Macky Sall tey jii gis nañ ne xam nañ ne tey jii euh, moom ak Macky Sall. c'est le grand amour Abdoulaye Wade gis nañ ne actualité bi ñoom ñoo ñoom ñoom ñaar rek la ñu ngi ñu ngi waxante ci ay baax baax yu nekk di defante ay teraanga yu nekk fàtte nañ lépp loo xamante ni moo xewoon seen seen seen diggante est-ce que tey jii yéen ñu xawoon na bàyyi góor gi sax entre guillemets dem ci Macky Sall seen i pexe du doon loo xamante ni day nax saay bu ñu gisee tey jii seen melokaan ñoom ñaar. ñun euh, préciser waal rek leeralaat rek. dañ leen a génne ci parti bi. dañ ñoo dàq ci parti bi. waaw loolu nga ko préciser. Euh, waane gis nga euh, ki nga xam ne mooy président Ablaye Wade ak président Macky Sall jubóo bi ñu jubóo ñun mhm. dañ ko rafetlu. Mhm. parce que gis nga réew itam dafa soxla stabilité. Mhm. dafa soxla paix sociale te président Macky Sall bi ñuy jàppale su amul paix sociale li nga xam ne bëgg na ko réaliser ci mandat bi du ko réaliser il lui revient mu trouver ay moyens yoon boo xam ne dana mën a am jàmm pour mu liggéey li muy liggéey donc loolu moo tax li nga xam ne xalifa général de Mourides def na ko. ci Masaalikal Jinaan. ñu ñu jàpp sax ne miracle bu Cheikh Ahmadou Bamba la parce que Abdoulaye Wade ak euh, président Macky Sall euh, jubadeewu nañu juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer. Cheikh Ahmadou Bamba jógee fii juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer dem Gabon dellusiwaat. ñu réaliser ko ci loo xam ne moo koy symboliser fii nekk dem ci Ndakaaru. yaakaar nañ loolu miracle la donc ñun loolu kontaan nañ ko bëgg nañu ko. li nga xam ne moom la Ablaye président Ablaye Wade ak Macky Sall nag juboowaat mais kooku seen intérêt ñoom ñaar d'abord la intérêt réew mi aussi loolu la. Mm-hmm. man calqué wuñu ñun calqué wuñu sunu avenir wala sunu doxalin nii si Macky Sall nii ci ki nga xam ne moom mooy euh, moom mooy président Ablaye Wade parce que ñun mm-hmm. ak situation bi nu mu metti metti metti. ak nu mu mën di doxalee ñun danañ ki trouver suñu chemin. Mhm. xam nga mon adversaire sama kariwaat doon na wax ne Farba Senghor. Mhm. dafa naxaree xeexal. Mhm. parce que moom ah dafay adapté wu ci à toutes les situations. nous on s'adapte à situation là. ñun Abdoulaye Wade a juboo ak Karim Wade ah, ak kii euh, amul dara lu ñuy déranger ñun on est content de ça. parce que suñu adversaire du Abdoulaye Wade. suñu adversaire. Karim Wade la. Mhm. en quoi la Karim Wade nekkee seen euh, euh, adversaire. non Karim Wade mooy adversaire u pouvoiru Abdoulaye adversaire la adversaire ñi àndoon ak Abdoulaye Wade ñi ko defoon confiance parce que soo ko seetloo bi nga xamee ne Karim Wade dugg na ci nguurug Abdoulaye Wade c'est-à-dire intrusion bi mu defoon. Mhm. ay boor yu ak génération congrès ki la ñuy commencé wax ay dévolution monarchique mm. ba Idriss Seck indi fi maître Carcassonne ak yooyu mm-hmm. ba fere bi dem ba indi 23 juin boobu yéen yéen a ngi ci woon dégguñ leen ngeen ngeen wax ci leen ah loo xamante wax naa ne daanañu wax mm. donc ba mu indi affaire u Carcassonne ba ñu daanu mm-hmm. bi ñu daanoo tam ñi nga xam ne dañoo génn ci parti bi mm-hmm. commencé par Pape Diop mi nga xam ne le moom moo njëkk a génn mooy jour bi ñu wootee euh, CICES euh, Karim Wade moo wax papam ne ñu teg Omar Sarr parce que xamoon nañ ne Omar peut-être moo gënoon a mariable moo gënoon a nangu. ñu ne nañ teg Omar Sarr ci loolu la parti bi def ay effritement ba léegi donc lépp Karim la ñun tam moo ngi dàq ndax di waxoon naa leen ne Karim Wade ñun moo ngi dàq. donc yaakaar naa ne ñun amuñu problème ak Abdoulaye Wade Karim Wade lañ amal problème. te Karim Wade mbiram njaw des na ko xam parce que Abdoulaye Wade jubóo ak euh, président Macky Sall. cela ne que euh, Karim Wade affaire am affaire am baax na. am na si moom ça va passer comme lettre à la poste moom. jamono ji ñu toll <laughs> naam naam naam sax gis dégg nañ la ci ay quotidien nga naan bés bu loolu amee tey jii Macky il risque sax de ne pas euh, yeggalee li nga xamante ni moom mooy mandaam amnistie bi ça va passer comme lettre à la poste. d' abord euh, nañ nañ ko nañ ko xool rek scientifiquement c'est-à-dire dañ ko xool. Mhm. ci institution internationale ni ñuy doxee ak ONU ak yooyu. Mhm. dama dégg ay journalistes yu bëri ay chercheurs yu bëri organisation représentation organisation de droits de l'homme yi ñuy yuuxu di xaaju naan Karim. Euh, dañ ko réhabilité. Mm-hmm. Karim euh, nee nañ nangam. Mm-hmm. mais combien de fois la ñu condamné la ñu par décision bu conseil de sécurité wala par assemblée générale des nations unies États-Unis d'Amérique wala Israël wala France wala euh, Espagne wala certains pays yeneen yi même Russie. Mm-hmm. te kenn appliqué wu ko. te décision la te lii recommandation la. Mm-hmm. les recommandations ne sont pas applicables. recommandation Nations Unies. Mm-hmm. amul benn bu ci applicable. temps yii rek laa doon gis benn séminaire bu ñu doon def pour que naka la ñu def ba décision yi Nations Unies di jël ñu mën a fexe ba sur le terrain mu applicable c' est pas applicable. Mm-hmm. c' est pas contraignant Sénégal su ko neexee da koy jël sànni ko fële. du ko appliqué. mais Macky Sall pour mieux huiler diggante moom ak Abdoulaye Wade mën na ko. Mhm. mais gëw mu def ko parce que Macky il n'est pas libre Macky dafa ànd ak ay nit. Mhm. Macky dafa xeex ak ay nit ñun bi ñuy xeex ak moom. Mhm. dafa am ñoo xam dañu bàyyi woon yëpp ànd ak moom. moom bi mu gagné dafa am ñu ànd ak moom di xee ànd ak moom tout son mandat. ñun bi mu jeexalee ñëwaat ñun dañu ñun dañu ànd ak moom. te su ko defee su ko ko joxee soo ko joxee mandat bi du yegg man Farba Senghor maa ngi ma et je ci mandat mandat bi du yegg ci nan d' sama xam-xam la boo xam ne xam naa ko parce que lu may mos wax ma ne day am. Mhm. deuxièmement Abdoulaye Wade combat am dégg nga ko ñu ne dernier combat am Karim Karim Wade. Mhm. c' est ma ne contre la ma ne la montre te Abdoulaye Wade su nekkee le maître du jeu nga xam ne moom mooy doxal moom mooy jaabal moom mooy yore yëpp. Mhm. su boobaa Macky day di daw di topp ci gannaawam dana ko def looloo xam ne. Macky du ko bëgg mën nañ dem ba lu nekk mën nañ dem sax euh, ba mu manifester loo gars yi gars yi manifester ne leen kaa day manifester dem la palais euh, ma ne uti pale ba. moom yàgg na ko def Diouf yàgg na fa xoxatal Diouf. Mhm. ñun nañ ba am na boo xam ne euh, Ahmed Khalifa moom moo sauvé Diouf donc donc mun na ko def. Mhm. donc yooyu yëpp mu ngi ci Abdoulaye dafa bëri pexe. dafa bëri pexe te su yoree su yoree cëggal guyam mu yoree buum gi. Mhm. muy doxal. Macky topp ci koom. Macky dootu liggéey sax. donc Macky na na waxtaan na ànd ak Ablaye Wade na juboo ak président Ablaye Wade. bëgg nañ ko mais dafa am fu mu war a yem ci sama xalaat. sama xalaat boobu dafa am fu mu war a yem. tout à fait fu mu war a yem mooy Karim Wade c' est pas l' essentiel. Karim Wade c' le passé. man gisuma sax Macky Sall ak mu di nangu ak nit yi ñuy indiwaat dossier Karim di ko teg parce que Karim wax nañ ci jeex na. Mhm. am na juróom-ñetti ak yoo xam ne. am Macky moo nekk o pouvoir mi ngi doxal mais mënoo doxal juróom-ñetti weer juróom-ñetti at ba pare wàññeekuwaat di gestu sa gannaaw ñun dañu bëgg mu jëm kanam. dañu bugg li mu yore nii mu yore ko mu liggéey sa dossier boobu dañ ko war a jël ñu effacé ko ñu teg ko fële. Mm-hmm. et ñi nga xam ne ñoo ànd ak président Macky Sall ay ministre yeeg ay politiciens yeeg ay yooyu nañu xam ne ñu ñu ñu àndal ñu ñu ñu jàkkaarlool opposition bi mais c'est comme football rek da ngay dribbler nit. romb ko bëgg a dugal yi mu téye sa mbubb arrêté la. Mhm. pour doo dem. Mhm. téye euh, kenn du la kenn du ko gis mu xëcc la. Mhm. pour nga taxaw. moo léegi xam ne ne Macky Sall jàll na léegi Macky nee na damaa bëgg liggéey plus que le président Abdoulaye Wade pour mu liggéey loolu il faut mu am mu am jàmm. il faut que aussi mu bañ a wàññeeku di xuloo yi ndaw yi di jàppante yooyu donc ñoom dañ koy jéem a retenir. tout à fait donc il ramène le ay problème yoo xam ne ay troisième mandat ak yooyu. nitam boobu ci la daanu ba ñu téye ko. parce que waru koon wax. dañ lay wax ne ko lii c'est inopportun. troisième mandat jotagul. heure bu jotee danañ ko wax te président bi wax na ki ci war a wax. non troisième mandat moom kenn sañu see yàbbi léegi. kenn waruñu see léegi sax yàbbi. nañ naan noppi mbaa du génn ci biti. voilà dama la bëgg a wax ne la. donc mhm. donc donc ñi nga xam ne ànduñu ak président Macky dañuy seet loo xam ne waruñu ko wax léegi ñu andi ko teg ko ñu nekk ci di xuloo nag su ko defee président Macky du mën a liggéey te il faut que ñi nga xam ne dama bëgg ñi nga ñu ubbi seen bët. xam ne ñu ñuy àndal tam ce sont des stratégies amatuñ doole joo xam ne danañ mën a jël nit ñi manifester leen dañ leen mën a loo mënuñu waxati nit ñi euh, euh, lu ñu gëm parce que soo amee soo soo pertee euh, amuloo 43 pour cent. a mhm. naka ngay ci loolu ngay yem. Mhm. ah soo pertee loolu alors mënuloo nga imposer. Mhm. ne man man maa nekk ci dëgg. parce que déjà peuple bi àtte na donc je crois que loo ci gis rek xelaat la. xul bi nag. dafa nekk loo xam ne Abdoulaye Wade da ciy tiire profit et c'est tout à fait normal. Mm-hmm. te je crois que loolu tam animé na li animé président Abdoulaye taxitam tax itam mu bëgg a juboo ak président Macky Sall ci la bokk parce que ñun bi ñu daanoog léegi ban président ban haut fonctionnaire nga gis mu jógee bitim réew ñëw seeti président Macky Sall dem jàll seeti président Abdoulaye Wade soo ko dégg. Mm-hmm. ban président nga gis mu mu wàcc rek daal di Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade lay seet si. gisoo ko. bañ a créer tension. ci wàllu diplomatie. parce que. Mm-hmm. ñi nga buur yi buur la ñuy àndal. Mm. donc premier ministre yeeg président yi chef d'état yi. Mm-hmm. buur yi la ñuy àndal. man nañ la gisante yow gisu waxante yow. Mm-hmm. mais publiquement li ñuy def duñ ko def ak ñoo xam ne dañuy opposé wu ak seen ak seen ñi nga xam ne alors ñoom ñoom mel ni ñoom nekk yi nekk yeneen réew yi. donc président Wade il a intérêt. que mu juboo ak président Macky Sall. su ko defee. Euh, am lu mën a ruus léeg-léeg. président Macky suy dem mu mën a ànd ak moom wala mën ko dugal ci. Mhm. d'ailleurs soo gisee communiqué bi nga xam def nañ ko. Mhm. dañu wax ne président Ablaye waat ak président Macky Sall xool nañu. Mhm. situation sous région bi. affaire sécurité bi. ni mu précaire xool nañ ko ah nee nañ ñoom ñaar danañu ànd pour fexe ba jàmm ñëw ci Afrique de l'Ouest ak ci Afrique. mais eh, est-ce que am na ci loolu intérêt Macky Sall il voit ses pairs Macky il intervient à tout moment c'est Ablaye qui dugg ci système bi. xam nga Ablaye pour mu dugg ci loolu il faut que mu jubóog président Macky. Mhm. donc su la président Ablaye il y tire un intérêt d'autant xaw ma xam nga ko wala déet. Mhm. mu am na benn cabinet cabinet d'affaires bu mu créé woon boo xam ne dafa bëggoon liggéey comme daanu na mu mën di seeti président africain yi. Mhm. di seeti borom alal yi mais mënu ko parce que soo jubóowul ak président bi doo ko man keroog indi na ay dossier indi ko xale général bi lu mu wax. soo ma joxee ndigal est-ce que xalifa mhm. général bi dana dana ko jox ndigal te président en exercice bi nekk fi mhm. moom il était là liggéeyutoon loolu mais su fekkoon dafa jubóo woon ah, man kat naa loo xam ne mën nañ koo liggéey ci biir dëkk bi ah mën naa andi diw mën naa andi diw je peux te mettre en relation ak diw su ko defee Ablaye Wade kon ni liggéey président Macky Sall am na loo xam ne gis na ko fi Ablaye defoon na ko fi te xam ne ça tient a cœur au président à président Ablaye Wade Ablaye nag ah, man kat lii kat ça me tient au cœur yow damaa bëgg nga jàpp ci lii mhm. donc Abdoulaye Wade su ko deful day fay parce que président Abdoulaye dafa nekk nit ko xam ne ku mag la. Mhm. c' est comme les Nelson Mandela ñi nga xam ne dégg leen seen tur yi. Mhm. Euh, c' est comme même les Obasanjo. c' est un monument. Mhm. mais Obasanjo a été beaucoup plus malin parce que Obasanjo dafa ñëw di waxaan ak di waxtaan ak président bi. amoon ay ñangas ñangas mu commencé waxtaan moom. gars yi dugal ko ba léegi ECOWAS CEDEAO. muy dem di wax di ñëw. dafay jóge dem ci yeneen réew day ñëw sax Sénégal. donc Ablaye a beaucoup perdu pendant ces sept dernières années. tout à fait et donc defe ne retrouvaille bi c'est un moyen. Mhm. pour que moom mu taxawaat. Mhm. pour que moom mu jógaat mu taxawaat. absolument euh, euh, am ay problème yi comme problème financier yi nga dégg Ablaye am na ko. Mhm. dégg nga te Ablaye sax ay la yéwén doom ji rek la mais Ablaye chaque fois wax naa day souffler le chaud et le froid. Ablaye day mën na xeex. lool waaye su demee ba bu ngi bugg a dog dafay taxaw. su taxawee mu waxtaan mu for dara comme ni mu ko waxee dugal ci jibaam mhm. daal di continuer waat wuti leneen mais Abdoulaye nekkul koo xam ne day xeex bu mu gi dog mhm. mosu ko def mhm. mais doom ji mooy wax toujours bàyyi yaakaar yow da ngay sa affaire bàyyi ma te nag affaire am Abdoulaye munu ci dëkk nag juróom-ñaaraat affaire bi kal <clears throat> Abdoulaye c'est un c'est un stratège que dafa de vue de mort également doom ji oh, oui mais xam nga doom ji normalement ba àddinay baax doom moo war a euh, di jël di sonn ci baayam doom moo war su papam demee ba mënatul. Mhm. mu koy mu koy jël naan ko papa toogal. Mhm. ma ma la. Mhm. mais c'est pas que papa ji moo ko naan toogal dowaa di nelaw nekkal ci hôtel yi. su la neexee nga noos su neexee nga def lu la neex. xañ na sax uri ani mu la wër. sa papa ñëw fii. dem di marché lacrymogène ñu ko koy dóor. ah wala mu ngi nii suy def dara gars yi ay doomu jàmbur ñoo di ko jàppale. Mhm. yow de di ko seetaan. donc mhm. quand même loolu c' est pas logique. donc je crois que Abdoulaye Wade il est beaucoup plus raisonné. Mhm. xam na ne léegi euh, le temps presse. et si le temps presse il faut des solutions léegi na jubo ak président Macky Sall. Macky Sall président Macky Sall tam euh, su juboo moom. dana ko permettre. mu liggéey parce que il veut xam naa ne man xam naa il veut faire plus que le président Abdoulaye Wade te il faut des conditions. pour mën ko liggéey et de tranquillité et de paix sociale. Mhm. parce que xam ne jàmm sax xaw na ñëw. Mhm. parce que gars yi ñoo xeexee ci réseaux sociaux yëpp xaw na mais xaw na wàññeeku. stabilité donc nañu naxante. ci loolu mhm. naxante ci li nga xam ne moo leen di jëriñ ñaari président yi. affaire de Karim nag loolu c' est subsidiaire nañ la gën a wàcc mu taxaw mu xeexal boppam. absolument alors euh, gis nañu Sori euh, dañ ko wàccee suite ak. Euh, benn déclaration bu ñu defoon sur troisième mandat président de la République Macky Sall bi ngeen ne sax jotagul pour ñu wax si mais yaakaaroon ne tey jii nii si cela s'avérait juste que Macky Sall dafa bëggoon am troisième mandat du ñuy ñëwaat ci effet bi nga xamante ni moom moo amoon ci seen régime ak li nga xam ne moo di car bloquant bi ba askan bi yëpp génn. waaw xam nga man déjà euh, déglooguma version gouvernement bi Jafar Souri Kaba bi wala dégg nga ko. est-ce qu'il y a communiqué boo xam ne wax nañ ko. Mm-hmm. wax affaire soori Kaba bi vraiment dégguma ko. Mm-hmm. donc ñu ñi ñëpp rek dañuy li ñuy wax extrapoler. Mm-hmm. ku nekk dangay ngay yaakaar ne lii moom moo tax. mais borom kër gi su leen wooyee yéen ñëpp ngeen ñëw mu ne lii bëgg ma ko def sama kër. wala bëgg ma ko wax sama kër soo ko waxee si këram yaa ko tooñ. parce que Sory Kaba n'est pas le directeur. Euh, du de, de, euh, des organisations gouvernementales. Mm -hmm. il n'est pas le gouverneur des radios et des télévisions wala des journalistes. ah moom président moo ko fal. parmi des milliers de Sénégalais il aurait pu fal keneen. Mm-hmm. donc su leen ne yem leen fii foofu la ñu war a yem. donc ça c'est une erreur monumentale. Mm-hmm. et le président il nomme à tous les postes moom mooy nommé ku ko neex. donc je crois que su su su leen wax loowul. bu leen wax. ma ne xaw ma nag lu xew ndax def na leen wala déet mais su président ne bu leen wax nangam te dégg nañu. <laughs> Euh, président woo na leen nee leen am na yoo xam ne bu leen ko wax. il faut vous concerter. <laughs> et je crois que problème bi nga xam ne moom la ñu ànd ak euh, président Macky Sall euh, loolu la xaw ma dañu amul accès direct ci président bi xaw ma duñu laaj. <laughs> parce que je ne vois pas comment ay directeur ki directeur de cabinet ki ay ñooñu war a dem fenn. te te laajuñu. discipline communicationnelle la ñuy wax foofu noonu. non dañu war a laaj. Mhm. c' dañu war a comprendre mission bi ngay def. Mhm. dañu war a comprendre mission bi nga dinaa euh, sëñ bu baax bi sëñ Fallou doon na yónni nit nga dem ba sori mën la kaay lan laa la wax. Mhm. pour nga répéter ko lim la wax pour pour pour mu mu wóor ko ne ko yow lii lii moom la la yónni. donc je crois que problème bi. du ay du ay kii ay problème communicationnel. c' est à dire problème mu. sens de responsabilité la ku nekk da nga war a xam. Mhm. yow li ngay def mais mënuloo porter mission boo xam ne xamuloo ko et puis troisième mandat même su ko kenn waxuloon sax Sori Kaba. Mhm. da ci warta wax. parce que président nee na mais Sori Kaba li wax dafa leer. le président de la République a déjà déjà clos ce débat. waaw dama ne. Mhm. xam nga. ki lay tunglu moom. Hmm. mi ngi seet rek nga def erreur bu ndaw. Hmm. wala mi ngi seet faay pour mu dugg fa bul ko may faay bi. absolument yow loolu nee nañ la bu ci wax. Hmm. yow tam waroo cee wax sax par stratégie. xam nga départ bi nee naa la. am na yoo xam ne ay ay débat inopportun la. yow sax reconnaître nga ne loolu jotul nañ ko bàyyi parce que président dafa bëgg a liggéey ngay xëcc mubam su bëggee daw. da daw pour def leneen nga téye ko. maanaam bu yàggee da lay fël. mais su yàggee su yàggee da lay fël. cest à ñeneen ñi. yéen mën ngeen ko. <laughs> Mhm. mooy comme li ma rek ci affaire débat wu. Mhm. Euh, étrangement si déggatoo ñu di ko wax. li taxoon ñu ko wax mhm. bi mu amee deuxième mandat bi gars yi bàyyi nañ loolu léegi xam nañ ne loolu ñoom mënuñ ci parce que loolu c' naturel. Mhm. c' naturel que nit ki seet kam neex nga ànd ak moom. mais léegi ni ñuy def kay dañuy xool ay débat xam ne dafay retarder pays bi su ko defee moom du mën a liggéey. tout à fait il faut que. moom mu fexe. continuer liggéey fàtte yi te loolu ñu àndal. Mhm. ñoom ñoo war a am mat ñoo am war a am chance de responsabilité xam lu ñu war a def ak lu ñu war a def te kan du la wax te dañu war a laaj parce que Kassé. Mhm. la même erreur boobu moom la defoon kase déggoon nañ ko fi mu dem wax ci affaire Aliou Sall. Mhm. mais il su fekkoon ne. demoon ça lui a valu euh, son poste également fekkoon ne toog. xam ne lii c'est un problème crucial bu yëngal réew mi yëpp. bala moo dem mu ne Aliou Sall yow loo xam ci loo lii. donne les éléments mhm. réels. Mhm. su ko mënta laaj président mu laaj ko. maanaam ñu yëpp ko daal balaa moo dem. waaw balaa moo dem dañ koy yëpp. Mhm. dañ koy yëpp su ko defoon loolu kon doo def erreur. mais su fekkee ne da ngaa bëgg défendre benn régime. amuloo expérience ba ci war te doo laaj. ci erreur rek ngay dëkk. absolument te loolu ñoom ñoo ko war a moytu. absolument voilà alors monsieur le ministre deux petites questions ñu daal di jeexal débat bi su njëkk moom moo di est-ce que tey jii gëm nga réunification famille libérale bi ñuy wax. mën na am parce que déjà mi ngi en cours. Mhm. déjà réunification bi mi bi. Mhm. mi ngi en cours. Mhm. parce que am na ñoo xam ne ñoo ñu jiitu woon dem ànd ji ak président Macky Sall. Euh, ñun après on venu dem ànd ji ak président Macky. ñun ñu ngi ñun ñëpp ñu ngi bennoo bokk yaakaar président Abdoulaye Wade ñoom Omar Sarr ak ñooñu demoon nañu euh, xam nga di ci xew. ci dialogue bi yooyu répondre ci dialogue bi. Mhm. répondre mhm. président Abdoulaye Wade ñëw na répondre donc je crois que wax mooy indi mooy indi mooy feeñal bunt dañu wax ne ni mooy tax nit ñi gindoo gindoo ko mhm. donc déjà comme loolu mun na man yaakaar naa ne. kon mën naa am ñu dem ba les libéraux ñu ànd nekk benn parce que benn problème la libéraux yi am rek mooy Karim Wade. Mm. si Karim Wade n'existait pas tey jii maa la wax ne la. ñëpp monsieur le ministre dafa mel ni yow Karim am ngeen contentieux boo xamante xam ne sénégalais xamuñ ko peut parce que daf maa génne ki li ma xam li ma gën a bëgg. li ma xam philosophie am doctrine am ak baayam bi ma xam ak yaayam. Mhm. ak parti bi moom mii nag yëpp dama ci génne kon problème la ñu am. Mhm. mais li may wax nii jotagu la su tey jii su fekkoon ne Karim n'existait pas Karim amul. Abdoulaye Wade nii ni muy waxee nii ak Macky Sall mii kon lan mooy wax seen diggante quel est le problème te Abdoulaye Wade moom idéologie la ñu yore. Mhm. kon kay day nekk benn rek Abdoulaye Wade ci gannaaw rek eh, eh, di di eh, di waxal nit ñi donc problème problème bi kay mooy Karim la rek. dama doon wax ce gannaaw ma ne Abdoulaye Wade su bëggoon ah, partem taxawaat mission bi mu ko assigné retour au pouvoir wala libéraux yi des au pouvoir pendant cinq ans. Hmm. su ko bëggoon am na solution bi. day mel ni rek comme un chirurgien rek mu daal di dem extirper Karim Wade ci lépp génne ko teg ko fële daal di dagale ña fa nekk ne leen kaay la ñu waxtaan jiital leen ku leen neex gaa yi ku leen neex. Hmm. su ko defee mën nañ ànd ak ñun mën nañ ànd ak Macky mën nañ ànd ak ñëpp. Ablaye Wade day continuer dundaat parce que loolu la fay juddoo ëllëg ah liggéey bi Abdoulaye Wade liggéey ci biir réew mi doodu far danañ ko tuddee ay aéroport ak tuddee ko ay mbedd ak tuddee ko ay yoon fen fu nekk. Mhm. da ngay dégg ñu wax président Ablaye Wade président Ablaye Wade Macky Sall du ci am benn problème. Mhm. kenn du ci am benn problème mais nag tant que affaire fibre doom ji mi ngi ci biir. Mhm. loolu moom moo nduxumal moo nduxumal yëpp parce que lu lu ñu wax wax rek dañuy dañuy indiwaat doom ji. kon doom ji mooy problème te doom ji nekkatu fi. Mhm. mais ñoom mënuñu dindi loolu ki seen ki seen bopp donc yaakaar naa ne réunification des libéraux mun na nekk comme socialistes yi aussi. Mhm. am nañu opportunité et pour dagalawaat parce que Sénégal ni ma ko gisee nii mën nañ dem ba am deux grands partis yu mag yoo xam ne yu mag yu yuy jàkkaarloo mën nañ ko am. Mhm. mais c'est la c'est la volonté c'est-à-dire il faut que ñu accepter d'abord wax toog waxtaan accepter def table rase. Euh, rage ñu accepter ne ñun réew bu ndaw lañu c'est-à-dire yuuxu organisation des droits de l'homme yi ñiy yuuxu société civile ñiy yuuxu ci parti yi ak individuels yi ak gars yi yuuxu yëpp dañu war a am prise de conscience ñu xam ne ñun euh, comme ni ko laa waxoon c'est un pays où il y a de gap li ñu war a sakk li ñu war a liggéey dafa bari France ak Allemagne ak euh, États-Unis ak Arabie Saoudite ak Italie ak Espagne réew yooyu gaa yëpp nekk ak ay Chine mais euh, du ay mbedd lañ mooy seen priorité am nañ ay mbedd. Mhm. am nañ ay am nañ ay autoroute bu yorul jeex am nañ ay batiment am nañ kër am nañ lépp mais ñooñu ay lu ñu lekk rek lañu moo leen jaaxal. mais ñun ñi nga xam ne dañu war a def lépp lañ war def. dégg nga su kii da ngay dégg tey kër yu aw ma teen ah aw ma forage. Mhm. aw ma dispensaire aw ma école mais duñ jël conscience su ñun léegi dañu war a ànd. seet nu ñuy def. Mhm. li ñu bokk en commun ñu boolante ko. Mhm. pour mën a fermer gab yooyu. Mhm. ñu moo gën ñuy xiiroo ak di ŋaayoo. mais su fekkee ne day nekk làmb golo. alors ku jóg daanu. ah mais quand même kon ñun du ñu gaaw a jotee. loolu mooy indi suñu retard. te les choses vont vite dans le monde léegi y a l'internet. ay problème communication bi léegi les choses coûtent plus cher affaire dafa gën a cher. ma ne dara yombatul léegi pour déplacer benn expert pour mu ñëw. Euh, ça ça demande beaucoup d'argent yéen ñi pour nga def seen liggéey rek il vous faut un grand investissement donc loolu dafa demande mhm. prise de conscience boo xam ne Sénégalais yi dañ koy am ñu ne dañoo war a liggéey réew mi ñu liggéey réew mi moo tax alaa doon wax ne mhm. réew yu mel ni Sénégal li koy tax mu dox mooy dañu am despot despote éclairé xam nga déggoon nga comme déet y a mhm. une quinzaine d'années despote éclairé mooy koo xam ne dafay am jikkoy buur waaye dafay amaale yërmaane et e-, nit ñi waaye lépp loo xam ne bëgg na ko def day tapé la sur la table. Mhm. def ko def ko pour intérêt nit ñi parce que nit ñi soo leen di déglu rek en général danga xam fi nga war a jëm. Mhm. waaye soo toppee soo taar-taaree ki déglu bi da nga dem ba dootoo xam foo jëm. parce que kenn ku nekk day xëcc fu nekk. Mhm. donc il est dans l' intérêt des ñu jël conscience mais parce que Macky Sall contre naa ko moo nekk nguur gi te xam nga ce qui ce qui est absurde. mooy da ngay ànd da ngay xeex Abdoulaye Wade ba Abdoulaye Wade daanu. nga dem ànd ak Macky Sall wëñeekuwaat xeexaat Macky alors alors pour mu daanu sax day mel ne yow da nga yow côté ba nga jëmoon. Mhm. tey ku ko xool dafay du méngoo ak ak fi nga jëm. Mhm. c'est-à-dire lii si Abdoulaye doon wax rek dafa doon wax ne sa waxu tey euh, su fekkee ne utewul ak sa waxu démb. Mhm. boobu nit kaa ngi parce que sénégalais yi dañuy def dañ lay jéem a woon li nga xam ne moom moo teew. Sénégal duñ jéem a wut vision. xool li nekk ci kanam. moo tax mu ne loo xam ne ñëpp bu gisoon loolu lay jaxran kenn du ko wan kenn. Mm-hmm. nit ñi dañ leen di wan fan la ñu war a jaar. Mm-hmm. pour nit ñi jaar fi mais su fekkee ne kenn du jéem a kenn fan la ñu war a jaar pour dem. wala dañuy xool di débattre question inutile wala ñuy débattre la ca gannaaw mais quand même sa ne s'en sortira jamais. alors euh, deux questions bu nekk rek nga répondre ma si en 30 secondes xam naa mën na nekk. bi si njëkk moom moo di euh, euh, présentement. amuñu aucun rapport euh, bi nga xamee ne Aïdara Sylla rapidement yaayam gaañu na demoon naa Touba. Mhm. gisoon naa fa ay mag yu bëri ñu ne ah ñu li ñu gën a metti ci Ablaye Wade liñ ko meree mooy muy kilifa mu génn nekkul ci réew mi yéen yaag Pape Samba Mboup ngeen di ay doomam fu nekk ngeen jaar fa ak moom. ngeen ne dañ leen a génne ba ngeen ne sax doom yi moo leen génne Abdoulaye Wade ñëw woowu leen waxut ak ñoom gëmm seen ay bët loolu ba métti nañu. Mm-hmm. parce que su doon dafa yaar ci yoonu kilifa. daf leen di woo wax ak yéen moom su ngeen bañee wala même su ko mënta le ndax gaa yi ñoo bañ ñoo xam ne dox na soxlaam. Mm-hmm. kon amuñu benn rapport mais yaakaar naa ne loolu côté Abdoulaye Wade la parce que ñun moom rek la ñu xam. Mm-hmm. ñun moom la trahir. parce que Abdoulaye Wade la ñu bëgg. Karim Wade la ñu bëgg moom la ñu xam mais dañu xëy rek ñu génn ñu ci. donc amuñu benn rapport. a dégg. ah man boo gëjee dégg avant ba ma ko gëjee dégg boobu mooy ba ma génnee rek bañ bañ ñu dàqee. Mm-hmm. ba ñu dàqee boobu laax gëj a dégg. amatuma ci moom benn damay am ci benn ay nouvelle nag xam nga man dara réeruma foofu. Mm-hmm. damay wax mm-hmm. sama gars yi man maa ngi fi waaye maa ngi ci biir. amul dara am nga fa tànk daal. <laughs> am naa tànk fa Karim toog sax am naa ay tànk ci Karim. fa Ablaye Wade toog am naa ay tànk ci ci ci Ablaye Wade. Mhm. ci parti bi ñëpp fa ñu nekk am naa ci tànk. Mhm. parce que la dafa doon wax ne Farba yaay man man maay yow. Mhm. yow yaay PDS kenn mënu laa génne PDS. ndax yow rek ci Sénégal. yow yaay wax ñuy laam-laamee li nga wax maa ko wax wala yaa wax da da nga yaa fara ba mooy juret bi su waxee nii ke yooyu Ablaye Wade damay wax loo xam ne sax euh, du ko fekkee donc Ablaye Wade daal vraiment euh, mooy man maay moom donc loolu moom ñu tàggoo damay informé wu tous les jours damay xam li xew amul benn jour moo lu xam li xew lii ñëw sax ci moom dama ko xam sànqatma <laughs> li xew absolument alors monsieur le ministre émission bi na rapidement lan la waa sama dernier mot daal mooy ñun ñëpp ñu xam ne dañu yor réew moo xam ne comme ni ma ko daan waxee rek mhm. un état en construction réew nag su fekkee da nga ko yor da nga war a jël prise de conscience danga nga war a xam yow lan nga yore ñun ñiitam ay réewu ndaw lañu nous sommes partis de coloniser am indépendance waaye il faut indépendance bi ñu dara su fekkee dañu yor suñu réew am indépendance te mënuluñ suñu bopp dara ah, li mag ba na wax rek kañ la colonisation di ñëwaat te loolu c'est extrêmement grave parce que soo génnee Sénégal nga dem États-Unis dem France dem ci gis mbedd yi de goudron yi gisaa di muy doxee ba pare ñu yàllu ci ay whatsapp yeeg di rajo mhm. di ŋaayoo di xeex bañ a liggéey il faut daal du travail il faut ñu liggéey parce que docteur nu PDS mooy liggéey les libéro Cheikh Bamba noonu ku ñàkk jëriñu kon daal li wax na nit ñi liggéey na nit ñi am tolérance ci seen diggante te te nañuy dégloonte mhm. amul kenn ko fi am le monopole de la vérité mhm. nañu bàyyi itam di pousse nit ñi à la faute ñiy kuy liggéeyal réew mi ak ku bokk yow entreprise ak ku bokk yow jataay mhm. Sénégal yi dafa bugg di pousser à la mhm. te dañu waroon def comme ni chinois yi daan def kenn ku nekk da ngay jàppale sa morom comme américain yi soo gisee ku yore lu baax ku def lu baax loolu da koy jël nga def comme sa bopp la pour yow ëllëg nga mën a dem loolu kon daal li may mooy nañu jëlaat prise de conscience ñu xam ñun réew mi ñu yore xam fi ñu bëgg a dem ndax ñu mën a rivaliser ak les grands pays de ce monde mooy les États-Unis ay France ay Canada ak ay ak ak ak daal Italie réew yooyu. man daal loolu laay digal Sénégal mooy sama dernier mot. merci Farba Senghor moom mooy tête de file parti bi di mbooloom askan wi la wax a ah, au lieu de mbooloom euh, Wade récemment ñu daal di changer li nga xamante ni moom moo di noowu parti bi. moom lañ doon dalal seen numéro émission bi nga xam ne moom moo di en ligne daal dinañ évoquer ah ay euh, sujet yu bëree bëri jëm ci li nga xam ne moo di mandat présidentiel génnam parti démocratique sénégalais yeneen actualité yoo xamante ni ñu koy euh, waxtaanee si euh, Sénégal bi gërëm ko sant ko gërëm également tous les techniciens yi nga xam ne ñoom ñoom ma jàppale ma daal di réaliser numéro numéro bu en ligne bi di leen jox di daje. yeneen i fan yi ñëw ak yeneen invité mais d'ici là comme ni ma koy waxee l'information continue sur la référence Dakaractu merci